dugg seen silib yi dugg ci seen caleçon yi di dàq seen jabar yi du topp seen njaboot yi mais kenn la woon bii moom moo leen sonal moo doon def opération rëbb dëmm ngeen ne da ngeen koy rey mais mooy ñoom na il faut se soulager gouvernement bi ne nii su mi seen mbubb na <laughs> alhamdulilah tuez-le tuez-le tuez-le c'est un chien c'est un traître gars yi booy patriote ko patriote yi bàyyi leen ko gouvernement nu allez allez-y tuez-le tuez gars yi di xabtalu mel ni ñu kii non il faut ñu rey ko rey ko mu dee rey ko mu dee boobu laa gëj a def opération rëbb dëmm boobu lañ gëj a dugg ci seen silib yi ñoom boobu lañ gëj a wax seen belefete jabar yi boobu lañ gëj a wax seen doom yi boobu lañ gëj a wax seen ndey seen baay boobu lañ gëj a wax seen seen toj toj yi ñuy def sonna nañu mi ngi wax suñu jabar yi wax suñu doom yi wax suñu njaboot yi wax suñu gel wax suñu cagaj yi daf ñu sonal rey leen ko na na dee na dee na ñu nekk en paix donc pour wax leen daal Frédéric Napel laay laay parce que Macky Ousmane Sonko dafa wax ay affaire am solo moo tax ma ne comme ni ko Ousmane Sonko wax xam nga démb maa leen wax ay audio Ousmane Sonko vous a parlé des audios Frédéric Nappel ay <laughs> ay audio ngi fi fees fi dell ay audio ngi fees fi dell Frédéric Nappel du wax lu ma wax nag wax naa leen ko nee na ma dañ ko imposer mu porter plainte Ousmane Sonko sax wax na leen ko tey dañ koo forcer te il sont prêts à le tuer bu deful luñ ko sant parce que il détient beaucoup d'informations lépp lu ma amoon ci information ci bureau doyen des juges Frédéric Ren appel mais yéen xanaa war ngeen jaaxle doyen des juges buy dem moo Mollah Morgun toog fi wax leen ne est-ce que yëg ngeen ne doyen des juges mi ngi Inde mais loolu man maa waxoon di da ngeen fàtte loolu wala kan ni doyen des juges maa xam Diallo mi ngi Inde mais noo ko xamee dama dama dama imaginer foo leen déggee information boobu mais man maa leen ko wax foo ma ko déggee mais Frédéric Napel m'a dit que ma instant yi ma lépp laa doon xam tout parce que il était là lépp laa doon xam et voilà instant yi dañoo arrêté affaire yi parce dañuy préparé wu mystiquement balaa ñëw recevoir Ousmane Sonko mooy avant ñoo woo Ousmane dañuy préparé dañuy préparé wu gars yi dañu dem Inde ma ne ko ah, Inde <laughs> Inde ah, mais moom moom dafa bañ Ousmane Sonko de bëggul Ousmane Sonko ah déedéet. information bu la koy jox c'est pas pour lu arranger Ousmane Sonko lu bañ Ousmane Sonko day wër di yàq Ousmane Sonko moom moo ma jox information boobu maa xam nu ma xamee ni maa xam jàll dafa dem Inde ma ne ko maa xam jàll ku mu ci la ma expliqué ne Pape Amadou Diouf procureur ci la ma expliqué ne moom ci lañ ànd ak ki nga xam ne mooy ma cuucu fay et tout ça moom moo jox information yooyu bu Ousmane Sonko ñëwee ci. Euh, xoolal sa email mu ubbi sama email gis dóor ma fi may xool <laughs> gis nga Ousmane wax fii di wax fee ci conférence bi non c'est pas bi mais pourtant maa ngi leen doon jox information te wane woo benn yoon ni Frédéric Napel malgré mi ngi may sërëxal ay affaire pour ma sànq Ousmane Sonko mais information yi wele ni mos a joxe mosuma sànq Ousmane Sonko mosuma cee sànq Ousmane Sonko non Frédéric Napel a trahi a trahi. je peux plus jouer avec lu il a trahi mais il m'a dit wax naa leen li ma wax nee na bu deful lii dañ koy rey man maa leen ne ma tuuti fay ak maa xam jàllo ne après Sonko ñëw gis naa ne saafara be nangam mais man maa leen préparé lool maa préparé Sonko avant moo dem bureau doyen des juges maa ko préparé nag mystiquement di nga fa fekk ay mbir di fa fekk ay saafara di nga fa fekk ay xor yande ay ay ay ay mbir kan moo ko ko wax man maa ko wax sénégalais di am information yi à temps réel bu tàng jër mburu mi di xayam xayam yi ma taxaw te pourtant jaxase na ci ay mbir pour ma yàq Ousmane Sonko musuma yàq Ousmane Sonko donc man Ousmane Sonko laa musa focus comment sauver ce soldat là nan la ñuy xeexee nan bu laajee ñu jaxase affaire ñu jaxase affaire bu laajee ñu génn ko ñu génn lépp di xeex ak ñoom nan laa xamee ni lu bëri ci doyen des jours bureau ba tout sax nan laa xamee moo tax carte bi moo génnee ñu bëri na non moo la est ce que carte ko <laughs> Frédéric Napel moo ko teg ci lalam amul jabar am na fukki jabar juróom-ñaar fukki gel yi mu ambal doom xam naa ay quelques doomam respect à eux Frédéric Napel takk na jaay takk di fase di takk di fase di takk di fase am na fukki juróomi junni doom yu bokkul ndey Frédéric Napel n'est n'a jamais été un commissaire n'a jamais été un commissaire Frédéric Napel a été un militaire nekk Thiès di liggéey déserté daw dem Casamance daw dugg Guinée Bissau gars yi militaires yi di ko wër c'était un déserteur moom moo ko wax moo ko wax ci gémmiñam j'ai les audios di ma expliqué bu mu déserté jaar Kaolack il m'a expliqué ça après gars yi dégg ci rajo bi rajo armée bi que président Napel dafa déserté daw seey mu dem Guinée Bissau indi fa benn gel dëkk moom am moom ay doom dem Libéria ca guerre ba yanu fa benn libérienne indi ko am ak moom i doom toroxal ko ne ko ne ne da ko doon empoisonné fen rek lay def grand boobu mu nekk commissaire tey dinaa wax Sonko Frédéric Napel nan la xamee Maham jàllo Frédéric Napel a été en Casamance en tant que simple policier il n'a jamais été commissaire Frédéric Nappel dafa dem Gambie jënd fa yàmbaa def ko ci sac au dos di traverser pour dem Casamance ñu jàpp ko fa ak yàmbaa dugal ko ci kaso bi mooy premier kasom moom moom ma ko wax premier kasom yàmbaa saagu yàmbaa au dos ñu jàpp ko Gambie mu ne ma j'ai croupi en prison en Gambie j'ai subi l'enfer c'est le gouvernement sénégalais moo ko sauvé jamonoy Abdoulaye Wade gars yi di ci jaxaw jaxaw Gambie la njëkk tuddee kaso ci yàmbaa fa la daanoo croupir fa en prison ñaari gouvernement gambien bi Yaya Jammeh ak euh, Abdoulaye wadd je pas di lijjanti lijjanti lijjanti la ba Frédéric Nappel génn ci lañ ko dàqee dafa bëgg ngant ngantul ponkal ponkal te il a soixante ans presque ak ay doom yu bari ak jabar yu bari yu ñu fase ñoom ay nekkaale yamba man maa ko wax xam nga day mun a porter plainte Frédéric Nappel yamba lañ ko jàppee Gàmbi tëj ko ci kaso bi mu pareeti jóge foofu ñëwaat nekk ci affaire yi dem Casamance toog fa ñu dem jël ko en tant que euh, ni ñu koy waxte snitch ni ñu woowee snitch sax euh, indicateur fenkat Frédéric Nappel nekk indicateur police nekkul policier de indicateur di jàpp booy yi di dugg ci baar yi baar am Casamance di dugg ci baar yi di dóoraate di agressé di sàcc xaalis jàmbur yi mandikat yi loolu la doon def Frédéric Nappel Casamance di dugg ci baar yi en tant que indicateur ah yor ay euh, carte policier te du policier indicateur buñ ko dàqee yàmbaa gi tëj ko génn indicateur muy dem ci baar yi ak jàpp jaaykatu yàmbaa yi di nangu xaalis ci ñoom nekk bandi di nangu xaal indicateur foofu la xamante kii nga xam ni moom mooy Maham Diallo parce que Maham Diallo a été procureur juge à Ziguinchor foofu lañ gaañante woo mu nekk dealer buy dexal Maham Diallo ay soxlaam foofu la gaañoon ak Maham Diallo tout ce qui est sale bu ñu jàppee jaaykatu yàmbaay yi jaaykatu drogue yi. Frédéric Nappel ci boppam ma ak Maham Diallo Frédéric Nappel moo doon récupérer drogue boobu noonu bu ñu doon récupérer moom di ko <laughs> di ko jaayaat donc Maham Diallo ak Frédéric parce que Frédéric dafa buggu doole ay bëgg doole bëgg bandi bandi lu ay dama lay ray man bandi laa moom yooyu moo ko neex tout son discours sax dama lay rey man bandi laa man agresseur laa man nangam nangam dafa bëgg doo dafa mën a bëgg doole doole doole la donc moom ak Maham Diallo c' était en Casamance lorsque Maham Diallo était juge en Casamance à Ziguinchor foofu la ko Frédéric Nappel xam muy jaay di revendre drogue yi ñu doon jàpp di topp dileer yi moom moo ko doon liggéeyal Maham Diallo Maham Diallo dem après mu demaat Casamance Maham Diallo ñëw Ndakaaru ah malgré ñu ko booleel ñëpp. mu mu laaj Frédéric Nappel parce que Frédéric Nappel moo fi nekk kuy bandi bandi lu xam nga nangam loolu moo tax loolu leen Sonko di wax tey mu woolu ko depuis la euh, depuis la euh, Guinée dëkkuloon Guinée de daf ko fa fekkoon dafay dem Guinée di ñëw ay événement xam ñëpp xam nañ mankaa ñi seen mbokk yi Guinée Guinée équatoriale loolu moo tax mag moom bi nga xam ni maa xam mi ngi réclamer Frédéric Nappel mu fekk ko foofu Frédéric ñëw fekk si ko donc lañ doon def Casamance yëfu banditisme yooyu loolu lañ nekk di def ndakaaru Frédéric nekk kat maaxam nekk nekk di liggéeyaat sale boulot loolu moo tax Sonko ne maaxam Frédéric mooy wax maaxam naan ko nañ ko tëj nañ tëj Ousmane Sonko nañ ko waay nañ ko damm caabi bi nañ nangam ak nangam Guinée Bissau loolu moo ko indi dëkkul Guinée Bissau moom ak Frédéric depuis fële la léegi nag lañ ko jàppaat deux fois benn bi nag fii lañ ko jàppee Sénégal Ndakaaru Njaay jal Jóob comme moom du militaire du dara mais dafa yàgg foo lay def ci foo lay dox fii dafa fekk ab accident accident Dakar ab tubaab bu accidenté keneen ñu tëdd tëdd foofu Frédéric ñëw ne leen moom mili kii la policier la naan day def constat Sonko ne leen mun na dafa am fit tàppet la mais dafa maanaam am na doole am na doole mais dafa jeexal te xam nga dafa yàgg bëgg affaire rébellion quoi mais dafa am fit tot def katu tot tot la tot ñoom ba rek Frédéric fekk ab accident ñi gars yi di teg ni xaar pol Frédéric ñëw fekk ko tombé dox ba taatam tàng rek mu ñëw fekk li lan la gars yi ne je suis policier naan day def constat xam nga nan la mujjee def oto tubaab bi la Frédéric dugg daw ak moom daw oto bi sàcc oto oto tubaab bi oto tubaab bu accidenté Frédéric dugg ci arrière tëppër ñi ko doon dox ba yegg si foofu rek tëppër ñi ko topp oto ba yóbbu oto tubaab ba gendarmerie ñoo ko doqe daqe daqe ba ay côté rond point lañ ko jàpp Frédéric Nappel sàcc oto jàmbur ñu yóbbu ko kaso rëbës xam na ko bu mu tombe lu fa malade ñu yóbbu ko pavillon spécial ay mbokkam di ko seeti muy yuux naan lañ ma dee maa ngi bëgg a dee eh, mbokkam yi génn ne dañ koy cotiser sax <laughs> ma Frédéric Rappel maa expliqué ça mbokkam yi di ko cotiser loolu pavillon spécial la mujjee accident de Paolo un français moom la Frédéric Rappel sàcc oto Paolo bi daw ak moom ñu jàpp ko ab bandi la fit toj toj rek lay def dof wurut loolu la def te loolu pavillon spécial la mujjee feebar ay mbokkam ñu leen di woonaa lañ cotiser leen ko Frédéric ne ngay cotiser pour ñu ñu koy cotiser pour mu ay médicament yooy yooyu pavillon spécial Frédéric dund na loolu tëj nañ ko Gambie tëj nañ ko fi léegi loolu papa bu dee bu dee euh, Babacar Touré Kewelo loolu la xaw ma ban la ci wax ba déglu ma ko bu dee am na be benn bu mu ci wax ci yooyu mais loolu dëgg la loolu dëgg la li leen Ousmane Sonko di wax ci Frédéric bu ma ci egsee bu ma continuer sax day day yàgg je ko connais très bien j'ai travaillé avec lui il m'a donné plein d'informations on a travaillé il m'a dit Mollah ma ne ko waaw mu ne ma j'en pour rien jàppal ni c'est le gouvernement sénégalais moo nekk ci digg bi ñoo ñoo ñoo téye di manipuler ñoom ñoo porter plainte ma ne ko mu ne ma ñoom ñoo ma woo ne ma nga porter ji ma dem wuyu leen ñu toog ak man te moom la Ousmane ko wax ministre de la justice euh, procureur doyen des juges mais ñoom ñoo ko woon ne ko demal porter ji plant par force mu dem porter ji plainte ñu jël plainte bi dugal dig dem jëli Babacar Touré Kewolo mu toog këram ñu woo ko ne ko kaay ah lan la wax kaay nga xam ne jàkkaarloog moom muy muy fen kii di fen ñuy fen fen fen nu ci dara mu ñib ñibbiwaat instant yi mu ngi toog këram de tekk la def. mën a farax génne kartam badjem Frédéric du génne na leen ay fen bii du badji bi de Frédéric teg badjem ci kaw lalam foto ko ki jox ma mën a ah, ok yow la man man maay garde corps mm, Maham Diallo naan expliquer toute son histoire avec Maham Diallo am ay do espèce su mbalitu Ousmane Macky Sall yi taxawaalu di xool ku ñuy fooye ñoom caaxaan mais bu leen 2023 ñu pare ci am na leneen loo xam ne soxluñ ko wax yi Frédéric Nappel am na yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen pour l'instant, on ne sort pas les pour Pourquoi on ne sort pas les audios de Frédéric Napel Comme nous sommes sous contrainte. Et nous avons fait am. Je suis venu yi les gars éliminé. Je suis venu. C'est... du yàgg sax gars yi rey ko fii gars yi rey nañ ñëpp kenn moo fi rëcc ci ñuy waroon rey moom mooy capitaine Touré moom rek moo fi rëcc dañ ko naroon rey mais il est très fort yàlla da ko may ku warte dee doo dee capitaine Touré rek moo fi rëcc te nan la rëccee mooy biñ koy wër pour jéem ko accidenté loo otoom pour rey ko di ko wër di ko rëbb topp oto bi en filature bëggoon ko accidenté dañ ko doon dóor embuscade mu sedd guy mais am na ay quelques xaritam yu ko xamal yu nekk ci biir gendarme yu ko xamal ne gars yaa ngi en filature ñu ngi ci sa kaw dans semaine bii nga dañ lay rey moo tax vendredi boobu bougé wul de fu mu toog la toog génne benn photo bu mu nekkoon Touba ne teg maa ngi Touba maa ngi Touba maa ngi nii di sëñ bi maa ngi Touba maa ngi Touba maa ngi Touba maa ngi ziari sëñ bi jël benn photo moom ma ngi toog fu mu toog Rufisque tëju ci néegam sànni photo bu mu photo woon Touba ne la maa ngi Touba de mooy maa ngi ni kaay leen ma nag maa ngi ni Touba da daa toog maa ngi ni Touba maa ngi yuuxu foofu yuuxu bu doy waar la fa yuuxu alerte bu doy waar la fa def dañ ko doon rey moom moom rek moo fi mucc ci enquête bi képp ku ci àndul woon ci entre Adji Sarr Ousmane Sonko képp ku ci àndul woon rey nañ la képp ku ñu reyul dañ cee ànd moom kese kese te dafa rëcc bundee ne maa ngi Touba toog fu mu toog sandi photo Touba ba mel ni ku nekki Touba loolu kese la da doon dee yàlla moo ko dimbale moom kese ci des ci enquêteurs yi wala ñëpp ñu fa waroon il a joué si sensibilité etc., etc. Il a vraiment été très intelligent. C'est ce qui l'a sauvé. Rigal a accepté le sale. Rigal a accepté nanat vomissement ami. lu mu lépp mu wàccoon da lekkaat képp ku ñëw accepté ils l'ont laissé képp ku accepté wul ils t'ont tué donc l'affaire Ousmane Sonko Adji euh, Sarr affaire bu salte la romb na sax ay photo ay montage ak lu doy la te lépp dinañ leen ko wax incha allah comme ni ma leen ko waxee rek léegi nag tey bëggoon naa leen sax woon wax wax affaire euh, euh, vidéo bi tout détail par détail mais dafa am kenn ndeysaan tamit soxlawul may wax turam ku bëgg Ousmane Sonko ku fonk Ousmane Sonko ku topp affaire yi démb dafa ma woo ne seetaan naa live bi da ne dangay ngay affaire détail vidéo bi man bu ma sañoon doo ko def léegi ma ne ko ah mu ne ma waaw da ngay bàyyi ba après procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang parce que fu nekk nii boo détaillé lépp rek boo ko détaillé rek day yàqu parce que bu demee gis lépp nga wax procès ba na mu nar rek demee tout dootuñ fa dem dootuñ amati yaakaar dañ nga préparé nga sénégalais yi ba pare loolu tuñ amati yaakaar si loolu yàqu na. donc comme ñoom fu mu ne ni ci bii lañ am pour l'instant toogal xaar leen bu procès Mame Mbaye Niang paree rek ñëwal tous les jours del génn di ko détaillé benn par benn benn par benn ba bañ ci ba le 18 mais pour l'instant defal tout defal tout ba nga xam ni euh, bàyyil gars yi nekk ci procès Mame Mbaye bi bu gars yi génnee le 6 le 7 le 8 tàngal ba mu tàng gars yi dañuy même même lu euh, mu tuddati euh, li ñu li ñu joxoon Ousmane Sonko lañ cay joxaat duñ ko changé bu gaa yi nag Ousmane Sonko mën na fa jëlee trois mois euh, euh, euh, dina trois mois sursis mooy mu inéligible maanaam lu leen Sonko di wax naan ngeen génn génn leen taxaw leen jëmmal leen seen bopp dama ne leen déglu leen bu baax li ma leen di wax boo génnul tàngal dëkk bi la six ba mu tàng jër le sept ba muy boy jër le huit ba mu tàng jër bu fa Ousmane Sonko demee mun na sax bañ a dem dina fa génnee trois mois sursi du dem ci élection yi bu dëkk bi tàngul maa leen wax loolu du dem ci élection bu dëkk bi tàngee dañ koy dañ koy joxaat lu ñu joxoon rek dañ ko delloo pour yokkal ko ay mois le six dafa war a tàng jër le sept dafa war a boy le huit dafa war a dóomu taal le 6 ñu tàngal le 7 ñu boyal le 8 mu xalaat doomu taal le 8 boobu bu ñu gi même chose la ñuy jàppaat te Ousmane Sonko nee na du ko jox fukki dërëm te waxoon naa ko fi live bu mu ko jox fukki dërëm du ko jox fukki dërëm da ngeen mën a yërëm tëllu de yéen xamu leen wax leen ko Ousmane Sonko dafa am fit dafa am fit c'est pas pour rien ma leen dafa am fit yéen a ma yéen a nekk Sénégal jege ko mais maa leen ko gën a xam. yéen a koy gis mais maa leen ko gën a xam jikko yu bëri ci moom man maa leen koy wax fit yu fit fit weesuwu ko bu ma leen taxaw fii naa bu ma doon Ousmane Sonko fukki dërëm du ma ko jox Mame Mbaye Niang ka non loolu mun nañ koo jàpp loolu mun nañ koo créer problème non non non loolu mun nañ koo nangam nangam ñi naan non kii dina ko cotiser kii dina xamu leen Ousmane Sonko xanaa yéen <laughs> billaay da ngeen di gis waa ji rek Ousmane Sonko c'est un Mollah Morgun c'est des gens fuu ci fit fuu ñoo xam ne dañoo am fit ba yaram bi yëpp fit la dawuñu dara ragaluñu dara dawuñu saa la yaay ndeer ça c'est Ousmane Sonko il faut ngeen xam ki ngeen amal affaire il faut ngeen xam ki ngeen àndal il faut ngeen xam fit bu mu am il faut ngeen xam fitu gaynde gu mu yor il faut ngeen xam ne kii du reculer il faut ngeen xam ko munoo ànd ak ku dul reculer di reculer munoo ànd ak ku dul ku dul daw ngay daw munul nekk Ousmane Sonko du daw du da du daay crazy nigga la faalewul dara lijjantiwul tous dafa focus kooku moo focus bu ñuy wax waxu focus c'est Ousmane Sonko kooku mooy Ousmane Sonko focus il est très focus dara du ko jox Mame Mbaye Niang